asalaamaaleykum sama gars yi man la seen général Kayz tey nag mission bi objectif pale la tudd tey na ñépp jubali palais de la république sénégalais yéen ñi am lu leen metti bëri ngeen ay millions de doomu aadama ngeen yéen a ngi toog seen kër yi bu ngeen génnee dinañ am libération réew mi boo leen toogee seen kër Macky Sall dina am ndam suñu kaw lu ñu war a def tey mooy lan mooy dugg ci koñ bu nekk kër bu nekk fëgg bunt bu nekk génnee góor yi ñépp jubali palais banlieue bi yépp dugg leen kër par kër ngeen génnee góor yi wàcc ak ñoom ci tali bi ñu jubal palais de la république arrêté li nga xamante ni moom mooy foutaise bu Macky Sall nag di def askanu Sénégal ak suñu réew mi donc combat mooy tax ñu gañe du toog fii di am découragement wala toog fii di naan yàqu nañ wala quoi que ce soit rien n'est perdu actuellement policiers yi nekk ci mbedd mi yépp Macky Sall daf leen désarmé ci seen fetal yooyu amul benn bal bu mu ci dugal parce que dafa ragal coup d'état donc policiers yi tamit dañoo démoraliser wu découragé nañ kenn ci ñoom bëggul xeex ak askan wi parce que xam nañ ni peuple bi moo nekk ci dëgg ba pare àdduna bi yépp a ngi bàyyi xel ci Sénégal di xool nan la Macky Sall di jëflante ak sénégalais yi donc combat bi jot na heure victoire bi jot na yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen génn bu leen toog seen kër yi boo leen amee lu leen metti génn leen fëgg leen buntu yi dugg leen koñ yi génnee leen góor yi ñëpp bu kenn des ci këram ñu jubali palais de la république nañ xam ndax assemblée nationale mooy décider ci place peuple bi wala peuple bi mooy décider boppam ci li mu bëgg mu xew ci réew mi donc jaangeen jëf man na seen général Kay Sof partagé leen vidéo yi sénégalais yépp jot ci tey journée mobilisation tous au palais la tudd jaangeen jëf l'armée républicaine une armée républicaine laa wax waxuma leen une armée au service de Macky une armée républicaine une armée qui sauve la République en cas de péril la République est en péril armée républicaine seen devoir mooy reprendre le pouvoir organiser ñu élection arrêter li nga xamante ni moom mooy foutaise bu ñëpp di gis bu ñëpp di tudd bu ñëpp di condamné armée républicaine bu leen décevoir peuple bi gendarmerie gis nañ ñu mu doxalee waaye yéen armée toujours peuple baa ngi am yaakaar ci donc bu leen ñu décevoir faites ce qu'il est libérer la patrie jaa ngeen la patrie ou la mort le Sénégal vaincra et l'Afrique vaincra merci